di Valencia basketball dara nga xul Maurice Ndour nek wala bokku ci yaakaaru basket Sénégal mom intérieur bu sen ailier bu Sénégal mo am 28 ans mom nak eh, danaka limu signé won bi mu na Libye ak fa nga xamante ne moom mooy ca Valence euh, ca Espagne daanaka toppuñu ko mooy d' abord li nga xamante ne moom mooy joué bi maanaam ñi koy mën a jox doole muy joué match yi yëpp waaye loolu amul te ma moom mooy entraîneur am daanaka déggoon ci ay kaddu waaye tamit boo ci boolee li nga ne moom mooy blessure yi di Maurice Ndour di am bokk na ci li tax li ko gàllankoor daanaka. ci wàllu évolution bu mu am ca club boobu nga xamante ne moom mooy Valencia basketball loolu moo tax kon ngir rek ñu jéexalee ko ci nga xamante ne day arrangé kambu ne tax ñu daal di dàkkal foofu contrat bi te jamono ji moom Maurice Ndour ngi mooy d'abord ñaari club yëpp ca Belgrade la rawatina fi nga xamante ne mooy étoile foofu la waaye jamono ji amul lenn loo xamante ne taxaw na rek moom Maurice Ndour mu mën a dem fa nga xamante ne mooy ca Belgrade wala mu changer club en tout cas faw mu am club ndax ci jamono ji euh, Sénégal am na yaakaar trop ci moom ne Sénégal mu ngi dem ci li nga xamante ne moom mooy